wa aqbalat te mu dëgmal siwaat baax doxoo ci gannaaw ba lii jëm ci man wa inni te naka man aqbaltu dëgmal naa lillaahi jëm ci yàlla wa abqaate mu desal man ni sama xeewal àdduna gannaaw ba mu wànnee gannaaw itam daawal bitikuwaat ñëwaataat mel ne ku ma dëgmal si waaye man daal ba ma dëgmal seeg ba ma wànnee gannaaw ak yépp rek ñooye moo man daal maa ngi dëgmal yàlla naka jekk musuma dañ di dëgmal yàlla ba am laa bëgg rek waaye mosuma koo geesu benn yoon adduna daal mosuma tax a xëy mosuma tax a gont fakkuluma lépp loo xam ne akkoon danaa nekk danti faaxin di boroom ak jariñoo bi ci moom mi ne duniyaa ci àdduna la danti faax yi fa samak jariñu fa innahoo naka moom yàkkoonu dana nekk zaadanti ab yóbbal lil jinaani jëm ci àjjana ya baadal bu yooxi ci gannaaw jaayante yi ma jaayante ak yàlla wal jihaad ak jihaad ja damti naan mbir mooy boroomuk xéewlu wala bokk mooy boroomuk xéewal gu bàyyi ko ci yàlla nee na lépp lu may jariñoo ci àdduna rek xamal ne zahir sa mooy àdduna waaye ci dëgg-dëgg alaxira la ndax dama koy def rek mu yóbbal ba kera may dugg àjjana gannaaw bi ma jaayante ak yàlla jihaad jihaad joo xam nangu na ko ak jaayante goo xam nangu na ko rek sama lépp léegi yàlla la sama dara du àdduna mbaa lu nuru àdduna lépp lu ma jariñoo ci àdduna rek xamal ne lépp yàlla la yóbbal rek ba àjjana ah madu dinaa sant rabbi sama boroom xalaa xëy ni waraa ci ngën ji mi def kama xaada naka mu wamate bi ci dara jaam ilee jëme ci man aswara saariya ne maa ngi sant yàlla ci xéewal gi nga xam ne xéewalu ñëpp la waaye man maa ci raw yonante bi la yonante bi la jàpp ne xéewal la gu yàlla xéewal la ñëpp te moom moo ci raw kon mi ngi sant yàlla ci xéewal googu ci daraja yonante bi nee na lu ma yàlla joxe alquran ahmadu foo dinaa ko sant xalantihaa i sayri ci eggoog sama dox ci eggoog sama dox la hoo jëm ci moom maxal maahi ànd ak aji far ji kéefër ba yupp xiite dana desal may di sama xont na maa ngi sant yàlla ci dox gi ma dox ba àgg ci moom yàlla ànd ak yonante bi dox bu sell bu jàppandi ba am laa bëgg ci yàlla am yoo bëgg ci yonante bi loolu daal maa ngi ci sant yàlla lool na baxtukum yeenaa leen maxan mboole seen xalaa kaddin ci ab coono badaa ba feeñ na lii ñel ma xabla an araa ci njëkk may gis ridan ngërëm mu abbadan lu di luñ dappetal neen nag coono yi nga xam ne moom laa daj door a am ngërëm li nga xam ne moom laa am tegtal la ci ne son rek te yàlla tax mooy taxa jariñu kon nag yéenaa leen ci loolu ne balaa kenn am ngërëm lu sax loo xam ne du am fu mu yem faaw rek day sonn sonn rek mooy taxa jariñu fa jaahidoo na ngeen jihaar ak ànd foosa bakkan ya laata tabion bu leen topp ëxwa aha seeni bànneex ba li fi nekk it tabion na ngeen topp arida ak ngërëm na ngeen di jéem a bëreeg seeni bakkan te bañ a topp seen bànneexi bakkan déedéet lu leen di may ngërëm rek na ngeen cay góorgóorlu yaa taaliba dunia yow aji sàkku àdduna ihfadan na nga wattu wasiyat yi sama dénkaane bi fa innaha naka moom xaali satun aji sell la bi niyet yi ci sama yéene yow mi wut àdduna daal yow mi wut àdduna maa ngi lay dénk dénkaane boo xam ne bu mat a jàpp la firra na nga daw mi ne duniyaa ci àdduna isalam takkun ndem ne ko maalika nafsika di aji moom sabakan tasir kon nga mujj za mikanin di boroomi daraja àdduna daal moom nee na bu fekkee ne moomoo sabakan bu wér a wér na nga koy daw bu baax a baax moom àdduna wattu mu yóbbaale la boo ko dawee te dëgmal alaxira rek sa aajo faju nga am darajey àdduna am darajey alaxira tadxikuka dalay reeloo al yow ma tey jii wattu bu kii ka te mu lay jooyloo xadan ci ëllëg maalam tabi xaa li feeg jaayoo ko bi na nga ko jaay tu laasim kon nga taqoog raxadan yaatug dund àdduna nee na li feeg wonoo ko gannaaw rek dalay sonal dalay reeloo tey boo lëgee mu jooyloo la te sax lim lay jooyloo mooy ëpp lim lay reeloo waaye loolu lépp rek boo ko warul gannaaw rek la lay mënal loolu waaye boo xasee woon gannaaw rek dal di am dund bu yaatu dund bu neex te du am lu lay sonal madmunu xaa la mu làmboo alxisiyaanu mooy gecci wal fadihatu ak toroxte wala turi te du wan bàyyi xaa aji jaayam ja fadihatan gàcce adduna moom nee na bon ak toroxte rek la ëmb waaye nag tey xam ak bonam rek mooy ka ko fonk di ko topp waaye ko wan gannaaw rek moom doo xam ak bonam tuubaa texe li man ñel na koo xam ne azhadahoo dëdduloo na ko mawlaahu boroomam fiihaa ci moom fa innahoo naka moom tulaa def na gis xulaahu kaweem ya ne ku yàlla may nga dëddu àdduna wan ko gannaaw dëgmal yàlla mi boroom àdduna ak alaxira xamal ne kon may na la texe ga féete kaw fii ci àdduna ak foofee ci alaxira te it kaw rek ngay jëm waaye doo jëm mukk suuf albaabu lii muy bunt bi al awalu bi aji jëkk fii xisma yi diini ci ñaari xaaji diine bunt bu jëkk baa ngi nii da ciy xamle ñaari xaaji diine ñaari xaaji diine mooy jëfe ndigal bàyyi tere ilam xamal bi an na diine ci naka diine chatraani yaari wàll la kama nassa naka yaxale bii ci loolu xabli ci sama njëkk baadul xokkamaa yi lenn ci way xam ñi xikam nee na diine day ñaari wàll te loolu ñi xam wax nañ ko njëkk ma di ko wax nii fa awalul aj jëkk tarkul manaahi mooy bàyyi tere ya mutlaxan ak luñ mën di doon daa na nga bàyyi al manaahi ya tere ya li baaxin ngir aji des atlaqa joj boyal na ma maanaam yewi na ma yeewatuma rek mooy atlaqa xaaj bi njëkk bi mooy lépp lu ñu tere rek nga sori ko bañ koo laal da ngay fexee bàyyi lépp lu yàlla tere te yàlla rek tax léeg-léeg mu daaneele loo xam ne day delsi ci boppam mata seetlu loolu mu ne li baaxin ngir aji des atalaxa joj boyal na ma mooy daa bëgg tey wax ne na nga bàyyi lépp luñ tere te yàlla tax yàlla mi nga xam ne moo fi des ba faw te du fi jóg bu mukk te it moo ma yewi man yéewatuma goreel na ma yewi na ma ba faw faw wa taani ñaareel bi fi'lu kulli shay'in mooy def mépp mbir umira moom digleef na bi ci moom wa man yudim ku ko saxal rek yukk fa kon fegaleef ko al umara lori buur ya ne xaaju ñaareel bi mooy sax ci def lañu digle xaaj bu jëkk ba moo doon bàyyi lu ñu tere xaaj ñaareel bi nag kon mooy def lépp lu ñu digle ku sax nag ci yaar yi def lañu digle bàyyi lañu tere te yàlla tax yàlla moo lay aar yàlla moo lay musal ba ñañame yàlla te am doole sax duñu la dëgmal mbaa bu ñu la dëgmalee duñu la mënal dara laakin namal awalu waaye nag aji jëkk ja asqalu moo gën a diis la daaman fa ña nga xam ne amanoo gëm nañu wala samoo te ñu taqoo at tajallu de góorgóorlu mu ne waaye nag ñi amul seetlu seetlu nañ ne bàyyi loolee ñu tere moo gën a jafe lool topp li ñu digle maanaam topp li ñu digle moo gën a yomb bàyyi lañu tere ndax daa mel ne bakkan boo ko teree da nga koo xabtal ci loolee nga koy tere ma tax mu ne seetlu nañ ne daal bàyyi lañ tere moo gën a jafe lool te moo gën a diis jëfe ndigal wa fi kalaamil Moustapha nekk na ci waxi kañu tànn salla yàlla ndol tedd nga xalaahu ci moom fil aali ci biir ñooñ na war sax bi ak saxaaba ya allasi yàlla mi nga xam ne abada feeñal na xolaahu ay kaweem nekk na ca lafzul muhaajiri baatub muhaajiri ila tamaam ba ca mat ga faj tamit na nga wattandiku assu a lépp lu bon bila ilmaamin ci lul ak wàcc maanaam ci lul nga di ko jege yonente bi nee na woon al muhaajiru man hajara maa nahallaahu anhu aji gàddaay mooy ki gàddaay la yàlla tere dem sanji ca la mu digle kon dëgg-dëgg gàddaay rek mooy gàddaay la yàlla aaye dem sanji ca la mu digle waxaak saani ki nii lafzul mujaahidi baatub al mujaahid warad rot na xan xu bàyyi ko ci moom alayhi yàlla nekk ci yonante bi min ilahin tukkee ci ab buur in farada bu weet na xayru salaatin gën ji dolli teral wa salaamin ak dolli wóol abadan faaw fii xisbihi ci biir kuréelam ba wa man ak képp koo xam ne abada jaamu na yàlla bi xaqin ci dëgg ba tey yonante bi nee na woon al mujahidu man jahada nafsa aji jihaar dëgg-dëgg mooy ka jihaar ak bakkanam xam ne kon jihaad ci jeesi ak yéefar yi metti na sonni na waaye ci dëgg-dëgg mooy jihaad ju ndaw ja ndax moom du yàgg benn rek nga gañe yéefar ba am yaari ngañaay am yaari texe mooy gu àdduna gu àllaaxira mbaa boog yéefar ba gañe la yow nga dem àjjana te moom du yàgg jihaad ak bakkanam nag moom na ak dundam toll rek noonu la jihaad jay yàggee te it lay baax ci moom rek mooy mu gañe bakkanam waaye bu ko bakkanam gañee rek boo tuut mu daal dem ca safaan ba tudd gim tudd yonent bi nag moo tax mu daldi julli ci moom ñaan yàlla dolli ko ngën ci teraanga ak ngën ji jàmm mook ay gaayam ak képp koo xam ne rek yaa ngi jéem a roy ci ñoom yàlla na yàlla saxalal leen ñoom ñëpp ngën ji teraanga ak ngën ji jàmm ba faw faw paslun li ab dog la fi tawbati ci tuub fa tawbatul insaani tuubuk nit fawran ci lu gaaw wajabat war na na daa matan ngir réccu xalaa zunubin ci ay bakkaar xajabat yoy yiir na ko maanaam dox na digganteem ak boroomam xay su xasaa fa mu moye min qabli ilmaamil aza ci njëkk wàccuk lorja fa innaha naka moom tuub ga kët lay sat bi tawbatin dir mu di ak tuub ivan boobee nit moom nee na saa yu jàddee rek def bàkkaar daa daal di war a gaaw a tuub rëccu dellu ci boroomam te bañ a yeexe tuub ga ba mujj xolam wow ba nga xamee ne du nangootee tuub mbaa boog cirébam daa mooy yàlla dem ba mënatu caa moyeti mel ne kon bu nee tuub naa itam te su ko jàppe ak tuub teew nag nee nañu ku daa mooy cib cër mel ni di wax lu aay ba yàgg làmmiñ wa dagg mbaa mu daa mooy ci sawukaay ba yàgg sawukaay ba dagg mbaa mu su yàlla xamee ci xolam ne moom mii kat bu ko delloo woon cër boobee itam réccu na lool ba du ca moyeti kon yàlla jégal ko ngir loola su fekkee ne cër ba la cër ba moo dem ba la mën mënatu ko waaye yàlla xam na ci xolam ne moom mii kat bu ko delloo woon cër ba man la mën a nit du tee rek mu rafetal ak tuubam kon yàlla topp ko ca loola jégal ko waaye moom daal na farlu ci gaaw a tuub rek balaa merum yàlla wàcc ci kawam mbaa muy dema dem ba cër yam daa mooyee mënatu ca la mu ca mënan loolu daal na ko moytu bu baax fa tuub tuubal di rabbika jëm ci sa boroom alxalima aji kawe xawfal maqaami ngir ragal taxawaay ba ëllëg wala tuwaxiraha te bul ko yeexe li ilmaamin tiqaamin ba ci wàccuk fayantoo del tuub gaaw dellu ci yàlla ndax di ragal bu ëllëgee boo taxawee fi kanamam na nga moytoo yeexe tuub ga nag ba fayantoog yàlla dal ci sa kaw fa innaha naka moom xiina isin ci waxtu woowee laatan tanhu du jëriñ wa in taqa ndéem dana tàbbi min xabli yi ci ak njëkkam nag moom fatan fanhu kon dana jëriñ dena boo bàyyee ba yàlla fayantoo ci sa kaw jekki tuub moom wees na kon du amati njëriñ waaye boo ko gaawee nag dana am njëriñ ndax aju tuub moom attaayibu min azambi kaman la zamba la maanaam ku tuub ca dëggu ca tuub ga daal day mel ne ku jaartoon ca bàkkaar ba tuub ga nag mooy bil ixtiraafi ci tudd bakkaar ba wan na daamati ak réccu maxa tadarruxin ànd ak toroxlu li waaxin jëm ci kenn xadd xamaxa kook not na noon ya fii xaali ruxsatin moo xam ci waxtu yolom la muy waxtu jàppandi aw yedd tiraarin wala ak loru bila tawaanin ci lu yéex wa bila israarin ak ci lu nuuru nee na booy tuub da ngay tudd say bakkaar réccu ko dellu ci sa boroom ñaan mu jéggal la ko moo xam yooyu jamono da ngaa toll ci ak jekk wala da ngaa toll ci jekk di waaye moom daal dal tuub fa saasay saas rek nga ko moy na nga moytoo nuur ca bakkaar ya muy sëkk ci rek di wéy maxa jasmihi ànd akuk dogoom fi xadamil xawdi ci ñàkk dellu ga ila xisyaani rabbihi jëm ci mooy boromam ba allasi boromam ba nga xam ne yonti dana joxe al ilaa xéewal ga bokk na ci sarti tuub nga dogu ci lu yàgg-yàgg doo dellooti ci mooy yàlla googee du tee nag bu la seytaane manee ba nga delluwaat ci mooy ga itam nga dellu yeesalaat sa tuub dooguwaat ci bañ caa dellooti mukk-mukk xam ne bàkkaar bi moom bu fekkee bis bu ne nga def ko yetti yoon baa lu ko ëppit te xel ba yoon bu ne rek nga rëccu dogu ci bañ koy defati rek yàlla mën naa def rek yàlla musal la ca nga far ko bàyyi benn yoon ci mbaaxam nga nee la kon daal bàkkaar moom doonte xaw na laa gañe nga di ko def lu bare bare bu mu tax nga naagu ne lii mënatuma ko bàyyi ba duma ko tuub déedéet saa yoo defee bàkkaar bi rek daal di rëccu tuub ko rek yàlla mën na laa dimbali rek ba nga bàyyi ko bu wér a wér faslun li ab dog la fii zikri maraati bi tawbati ci tudd darajay tuub tuub dafa def ay degare ndax biñ dee xool jëmmi koy tuub ak la muy tuub rek moo koy tax a def ay degare degare fa xaddoo lim nañu sabaxatan juróom-ñaar nel maraati bi ci ay daraja di taw bët ñeel tuub tudraa yooyu def na leen xam la dal makaati bi fa jàngukaay ya daa wax ne tuub am na juróom-ñaari degré yu bokkut te loolu ñi jàng ka jàngale ak bind xam nañ ko tawbatu kaafirin tuubuk ab yéefar minal kufri bàyyi kéefar ga ashadid kay aji tar bi isni rabbi ci nameelu boromam ila diine jëm ci diine ja ak sadid ja aji jub benn ba mooy ki nga xam ne yéefar la woon mu tuub nag kéefar ga daal ci génn ba set ci wecc dellu ci wéetal boromam bañ koo booleeg dara loolu mooy benn daraja bi wa tawbatul muxlisi ak tuubuk aji sellal ja min kabaa'irin ci ay bakkaar yu màgg ñaar bi mooy koo xam ne gëm na yàlla waaye dafa def bakkaar yu mag a mag wëlbatiku nag tuub ko loolu mooy degere ñaareel bi wa tawbatul xudóoli ak tuubuk way maandu ya min saxaa idin ci ay bakkaar yu ndaw ñetteel bi mooy koo xam ne gëm na yàlla te itam ku maandu la du def bakkaar bu mag mbaa néewaana mu def ko waaye yu ndaw yi nag moom mucc ci day jafe kooku nag bu dee tuub bakkaar yu ndaw ya muy def ko daraja la ci tuub ba tey kon mooy ñetteel bi wa tawbatul xaabidi ak tuubuk aji jaamu ja dil xayraati kay boroomi yiw mi maac la nga xam ne yesu uxoo dana ko naqari minal xasaraati ci ay fakkastalu fakkastalu mooy yiw jaaduwut yu wërta def koo xam ne jaamukatu yàlla la ku bari ay mbaax mbaax la la koy naqari nag ci def lu jaaduwut lu mu néew néew rek tuub gam koy tuub ba tey kooku degare la ci tuub kon kooku mooy ñeenteel bi wa tawbatu saaliki ak tuubu aji soobu ji yoonu yàlla liltifaat ngir geestu min ilalil xal bi ci rag-raggi xol wa min aafaat ak ci ay gàkk juróomeel bi mooy koo xam dafa soobu yoonu yàlla nag nga xam ne moom li ci ëpp bakkaaru saaxir néew dana ko néewle waaye nag lay nekk ci xolam ci loo xam ne yàlla gërëmu ko muy rag-raggi xol ak gàkk-gàkk xol loolee koy naqari nag mu di ko tuub akay kooku loolu dig tuubam kon ku soobu yoonu yàlla la muy tuub moom mooy rag-raggi xolam ak gàkki xol ya nga xam ne da koy tee ma nekk boroomam kooku ma juróomeel bi wa tawbatul warihi ak tuubuk aji sàmm ja fil jihaati ci wàll ya mi maac la nga xam ne yesoo ufa dana ko naqari mina shubhaati ci ay lënt mina shubhaati ci ay lënt al warih aji sàmm mooy koo xam ne tey moytu sax yu lënt yi ngir ragal dugg ci yu araam yi kooku mooy kuy sàmm kooku nag bu demee ba am lu ko gaar loo xam lënt la maanaam bu demee ba jege lu lënt tuub ba nga koy tuub nag waaw loola mooy degere tuubam te kooku ma juróom-benneel bi wa tawbatul mushahidina tuubuk way jàkkaarloo ña te gis dana daw min xafalaatul xal bi ci sàggan sàggani xol xaw fa sajrin ngir ragal ak jajje ñi nga xam ne àgg nañ ci fuñ toll di teewlu màggaayu yàlla mel na kuy jàkkaarloo ak moom duñ ko fàtte mukk mukk daanaka buñ demee nag as ndiir soo xam ne seen xol xaw naa sàggan lu mu néew néew rek gaaw gañu gaaw tuub delluwaat ci yàlla loola mooy seenu tuub te mooy juróom-ñaareel bi moom nag moo ci féete kaw xanaa moo ci féete kaw ci moo ci ëpp daraja ndax kenn ku nekk la muy tuub rek ba mu njëkk a wax nga xam ne mooy tuub génn ci kéefër dem ci lislaam péetal yàlla boobu daa mel ni moo ci gën a suufee lu baax loolu la nag ndax génn ci kéefër dem ci lislaam lu rëy la waaye nag bii nga mujj wax nii moom ka àgg ci dëgg rek teewlu yàlla ak jàkkaarloog moom mel ne ku jàkkaarloom saa yu nekk bu demee ba xolom xaw a yëgati lu mu tuut tuut rek ci googu wàll la mu ciy tuub loolu dëgg bu mag a mag la fa baadir na nga gaawe at taw ba te tuub ga wala tamit te nga sàkku arus te njub ga min xabli xal xibaar bi xaaj njëkk tëj buntam ba yaamul tamit san yow aji sàkku wadax te nga bàyyi xan ka ci sa bopp but an yee xamtalu maxat takkasuli ànd ak tayal tayallu wax sil te nga fóot dana sal israari tirub nur ga ci bakkaar bi si ci dëggu ca tuub ga kon nee na gaawul tuub fi saasay saasa fexee jub xocc balaa yàlla tëj buntu tuub sa digganteeg moom fexeel ba gaaw daal di tuub fa saasa na nga moytu yee xamtalu ak a taayal taayalu mbaa ngay sëkk ci bàkkaar rek déedéet na nga daal tuub tuub gu sell te dëggu ca nga daal tuub tuub gu sell te dëggu ca tuub ga fal xaaliku aji alkuja a chaq yi aji texeer jiddan lool man mooy ka nga xam ne xaraja génn na min xaal si dunia ji la àdduna bi zambin ci bàkkaar wa xarajin ak bàkkaar min xabli tawbatin ci njëkk ak tuub na sooxin guddi ab sellaakoon lil xaal yi jëm ci aji kawe ji subhanahu sorel naa ko lépp li yellu ci moom rabban bi mu ab buur li li kursi yi ñeel kursi yu xal yi yéen koy aji kawe def ko xal yi rek ngir woy wi maanaam ki texee di taal ku dëgg dëgg mooy ki nga xam daa sàggan ba faatu yóbbaale ay bakkaar yum tuubut ab jullit moom daa war a farlu ci tuub rek dellu ci boromam kon nag ka texee dëgg dëgg taal ku mooy ka nga xam ne daa sàggan ba génn àdduna yóbbaale ay bakkaar yoo xam ne tuubu ko loolu daal ëpp naa def moom faslu li ab dog la fil kabaayir ci bakkaar yu mag yi kabaayirul xaasiina bakkaar yu mag yi way mooy ña badal feeñ nañu xisriina mbir mu ñu ñaar fukk xam man jële ci ña nga xam ne nuqooluhum seeni toxal saxiixatun aji wér lañu xadat te jubal nañu nee nañu bakkaar yu mag yi dëgg-dëgg boo ko dee wàññi war naa mat ñaar fukk ci ñi nga xam ne moom la ko ña amu xam waxe xujjubun aaw wakiiburun ak rëy xasarun ak kañaan maxariya ànd ngisal muxtasat luñ jagleel la bil xale bi ci xol daalal mbirum muy ñeent fadrien na nga xam xol bi ci boppam daa am ñeenti bakkaar yi mag yoo xam ne nii ci moom xol bi lay nekk bokk na ca ngisal maanaam jëf-jëf joo xam ne jëf yi topp yàlla la jëf yi àllaaxira la te yàlla taxut loolu ngi sal la ak kañaan am ko am xéewal nga bëgg yàlla tàggale ko xéewal gi mooy yéene woo ko ko boo ca boolee wax mbaa nga jëf ndax kañaan nga rek mu daal di araam lool lool su ko defee rëy nag moom mooy jàpp ne am nga martaba keneen am na martaba waaye yow yaa ko féete martaba maanaam jàpp ne am nga daraja kii am na daraja waaye yaa ko féete daraja sa daraja moo féete kaw darajaam li yàlla sàkk daal loo jàpp ne yaa ko féete kaw rek rëy ngoog maanaam daal li yàq saa yoo xam ne rek li yàlla sàkk ma ngi ciy am ku muy jàpp ne moo ko tane rek moo ko féete kaw rek kon rëy nga ca moom xucc bu aaw nag moom mooy naw jëfam mbaa naw xam-xamam mbaa naw ak sellalam saa yu gisee boppam naw boppam daal loolu moo tudd xucc bu moom it lu aay aay la kon ñeent yooyu muy ngistal ak kañaan ak rëy ak naw boppam gis boppam yent yooyu daal yenti bakkaar yu mag la yu aju ci xol walxatulu rey ga xussa jagleeleef na ko bilee day ni ci yaari loxo ya mis la sarixati kem càcc ushkur santal ëll si yàlla mi nga xam ne kafaaka fegal na la alfasaxata way saay-saay ñax waaw nee na am na ñaari bakkaar yu mag yoo xam ne mi ngi aju ci yaari loxo yi te mooy rey ku wërta rey ak sàcc alali jàmbur kon rey ak sàcc ñaari bakkaar yu mag yoo xam ne loxo moo koy def boo ko boolee yente yow mu juróom benn wax yi batum jëw namimat ak rambaaj ak lu riba ak lekk riba xussat jagle leef na leen bi famin ci gimiñ mis lu xamarin kem sàngara suri ba sos naaneef na ko daa wax ne am na juróom-ñett yoo xam ne moom bakkaar yi mag la te mi ngi aju ci gémmiñ way wi andi na ci ñeent muy jëw ak rambaaj ak lekk riba ak naan sàngara yent yooyu ñu ngi aju ci gémmiñ ak yemu ciy bëgg a teg ka ak li am waal yetimi niki lekk alali jirim wal yamini ak ngiñ ay limu ci namm alxamoosi lay ab nuuralekat ci bàkkaar am ñu koy firee alxamoosi la di ab nuuralekat ci sawar waaye dañuy jàpp ne ndegam ngiñ moom ak lum aay aay rek moom bàkkaar la te yàlla mën na ko jéggale moo tax ñu bañ a tudd sawara te tudd rek ne lay nuurale ci bàkkaar li tax am bàkkaar ko defee kon nee na lekk àll jirim mooy juróomeel bi ngiñ loo xam ne wóor na kon du dëgg mu nopp mu waat ko ci yàlla kooku mooy alyamin alxamus mbaa muy sikki sàkk rek wóoru ko su daal gaa waat ko ci yàlla waat ci yàlla loo xam ne wóor na kon du dëgg mbaa waat ci yàlla loo xam ne koy sikki sàkk dong daal loolu mooy alyaminu alxamusu lii ñaar la boo ko booleeg yent yi nekkante mu juróom benn moo tax mu ni waxee ñoom xaaw juróom-ñett lañ laa amin déet mooy fen maanaam bàkkaar yi aju ci gémmiñ la wax juróom-ñett la juróom benn goog na ci nga wàññeegoon shahadatu zóori ak seere neen seere neen mooy seere loo xam ne wóoru la doon sax far na tombeeg la amit waaye ba nga koy seere yow wóoru la woon rek dangaa dangaa ñeme yàlla rek loolu mooy seere loola wóorut ko bokk na ci bàkkaar yi ma ngi tëj gémmiñ lay bàyyi ko waxal ful muxsanaati xas jigéen ñañu fegul taaminatul kabaayiri mooy ay juróom-ñetteel bàkkaar yu mag ya al mustahjanaati yadin jóonlu juróom-ñetteel bi nag mooy jigéen joo xam ne xamul dara ci ay caaxaan nga di ko tuumaal ci dox tànki caaxaan waaw tuumaal jigéen ci def jëfi njaaloo ak lu koy nuru te xamuñu ko ci moom dara luy nuru loola kooku bàkkaar mag la boo bàkkaar mag la boo xam ne itam gémmiñ moo koy def ñu ne boo ko wàññee mu juróom-ñetti ñoo xam ne juróom-ñetti bàkkaar yi mag la te gémmiñ ñu koy def jinan njaaloo liwaatun ak jëf-jëfi waaloot xusaa jagle def na leen bi furoo ji yëm ci seeni pay faqat dong faman maa la ku jeng ilayhima jëm ci ñoom ñaar saqata mu rot maanaam mu daanu rek muy saqata maanaam sawukaay am na ñaari bakkaar yu mag yu ci aju mooy njaaloo ak jëf-jëfi waa lóot jëf-jëfi lóot nag mooy góor jël ab sawukaayam def ko ci buntu suuf moroomu góoram na ko waa lóot daan defe te alxuraan di ko nettali lu bare bare njaaloo ak jëf-jëf yi waa Luut ñaari bàkkaar yu mag la yoo xam ne ñi ngi aju ci sawukaay te nee na yaar yooyu moom ku ko def rek daanu mooy ku ko def rek yàqule sa mbir yàqu boo tuubul lool lool daal te seenal tuub ga rek yàqule bu wér a wér fahaasihi yi yewun fukk laa juróom benn minal kabaayir ci bàkkaar yu mag yi daxaana nga leen bàyyi famama det la nga xam ne bi ataxoo jaay nga ko bi ba irin muy aji lambo yéen yi mu jot a wàññi dafa nekk fukki juróom benn ci ay bakkaar yu mag yu war a moy yoo war a moytu boo li moytoo rek loo jaay yàlla mu jënd ko boo li moytoo rek la ngay jaayanteeg sa borom du lamb ndax loo ko jaay ci lu baax mu nangu ko jënd ko dafa am nag ñu koy maas famama déet la nga xam ne biatuhoo jaay naa ko bi baa irin muy aji lamb kon mu dellu ci moom sëriñ bi taalif mu wax ne li ma jaayanteeg saa boroom dara dara lamb ca loolu moom lu leer la lu mu yàgg wax ci ay béréb yu baree bari la falaa tamit bul jeng ilaa la yaa dem ci dara min xaa ci ñoom wa jumlatul asraar te mboolem secret ya fii ka ci yow sun xaa na nga leen ñoŋal wala na nga leen lëm mooy na nga leen ñoŋal nee na bakkaar yi mag yi bu ci jege benn benn benn te lépp luy tee sa biir ñoŋ te sell rek dee ko moytu yàlla moom xol la am soxla ak jëf kon nag fexeel ba xol beeg jëf yi fu mu toll di sell di ñoŋ yàlla bañ cee gis lu mu bëggut nga boole ci nag moytu bakkaar yi mag yi boole ci amal lët yi ndaal ya nga xam ne xam mat matale nañu jami xal gis mi mboolem yaram wa fa arbaxun ñeent lañu xaawil na nga sàkku ajal la xis min gën jaare yi ëpp cër daa am yenti bakkaar yi mag yoo xam ne ajuwuñ ci benn cër bàyyi beneen nga xam ne bu ko jëmm ji defee ñu ne jëmm ji def na ko rek waaye duñ ko moomale benn cër bàyyi moroom ma xuquuqu waalidayni dog ñaari waajur wal firaaru ak daw ga min sax fi man bàyyi ko ci mës-mësim ña nga xam ne jumlatuhum mbooloo seen shiraaru ay kees lañu bokk na ci yent yi nga xam ne ajuwul ci benn cër bàyyi moroom ma bañ a topp sa ndey ak sa baay loolu bakkaar mag la waaye bu ko jëm jëfee ñu ne def na ko rek duñ ko moomale benn cër ñaareelu mooy bokk jullit ñi ba noppi ñuy xeex ak yéefar yi ngay daw loolu daa bokk ci bakkaar yu mag yi su fekkee ne yéefar ya dañoo yem ak jullit ñi waa dañ leen ñaar ci képp yem ci waaye ëpp ñu leen ñaar ca waaw su boobaa kon benn jullit sañ ta daw ku daw da nga am bakkaar bu mag a mag saa yu soo aj ñetteel seen